cheikh Mouhamadul Mourtada mu sëriñ Saaliw di ñaan sunu boroom mu yàggal ko fi lool te wéral ko yàggaleel ko ay naalam mu tàmbali yeneen sax ànd kook ñun ñëpp barkeb sëriñ Touba. xam naa ne waxtu wi e, xat na bu ko defee dañuy tënk rek lu gàtt jox e, sëriñ Abdul Ahad Bousso mi nga xam ne moo ñu war a defal e, njàngat ci guddi gi ñu nekk tey te njàngat li jëm ci jikkoy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ah, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moo waral guddi gi tey nga xam ne ci la gane àdduna yàlla sunu borom bi mu koy tagg da koo tagge jikko dane ko daal sa jikko ji kawe na jikko ji rafet na waaye taggewu ko sax askan wala fi bokk wala ci giir wala dara waaye jikko ji la ko ci kon jikkookat am na solo lool bu ñuy fàttaliku guddik juddoom gi ñu jàngat ci lenn ci jikko yooya ndax ñu mën koo def laltaay ak ngànnaay luñ ci jël rekk mu jariñ ñu ñu rawe ko ñu ci des kon ku ñuy wax sëriñ Abdou Lahad boso ngeen miin ko lool ci jotaay bi moom mooy def waxtaan wi muy boroom xam-xam di jàngalekat jànge fii ci réew mi ak bitim réew nekk ci keppaaru sëñ bi ci daara yeeg lépp lu jëm ci xam-xam ci màggal geeg gàmmo gi di ci def ay jéego yu am solo ñu koy ànd ak moom moom lañu bëgg a àndal jotaay bi mu tënkal ñu dara ci jikko yenente bi ndax xam ne naam loolu buñ ko toppee lu yaatu la waaye da ciy jukki rek loo xam ne dañ koy jël bind mën koo jëfandikoo ba ba tasewaat bu soobee yàlla kon sëñ Abdou dañ koy tënk noonu ndax waxtu wi sàmmonte gi jox la kàddu gi nga euh, indil ñu li nga waajal ci wàll woowu ñu def ko ngànnaay bismillah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi di nuyu te di leen ndokkeel ci guddi gu gi di guddi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye ñu leen di siyaar itam nuyoo bi ak siyaar bi nag ak ndokkeel yëpp ñu ngi ciy jiital. Cheikh Mouhamadul Mourtada mu Sëriñ Saalix di ko ñaanal yàlla yàlla sàmm ko te ko ay bëggatam li mu bëgg a liggéeyal maanaam lépp ci tool bi mu def ko dama ko bëggee léegi guddi mel nii nga xam ne ñu ngi ciy dundal euh, fàttaliku Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa guddi la goo xam dana baax ñu jël dara ci am njàngaleem wala fàttali ko dara ci siiraam wala ci ay jikkoom ngir mën a nekk suñu yóbbal ndax ki nga xam ne mooy suñu royuwaay di sa dafa waxoon ne koy màggal nañ ko màggal ci sunna ndax buñ ko màggal ci sunna loolu moo ñuy womat jëmee ñu ci àjjana mooy tax suñuy xéewal mën a yokk liñ bëgg lépp si lañ koy amee taadimuhu bi sunnati yaxuutuna lil jannati li guddi goo xam ne euh, li indil doomu aadama waaye indil ko ñi nga xam ne ñooy xeet sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa day lu rëy lu màgg màgg ndax laataa muy ñëw moom yonente bi salallahu alayhi wa doomu aadama ci ngëlëmte rekk la nekkoon mu ngi woon ci ak réer nekk ci ak jaaxle nekk ci ay coona ak làmbatu rekk jafe-jafe bari lool daj kàpp àdduna waaye moom yonente bi salallahu alayhi ak feeñam jamono day wane li di màndargaal coono yoo xam dana yëkkati ko ci xeetam wii waaye far lépp loo xam ne xeeti sikk la wala bàkkaar la wala luy moo tax Seexul Xadim mi ngi koy li ci des bi di wax xew-xew mag boobu yi di ñu diggante bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne laylatu mawlidin nabi laylatu maxwi riya bi laylatu maxwi taabi wa tuxridi taathumi biha alnajaatu walfalaax maa alsururi wannajaax biha rabaaxu walsalaax maa andifaaci niqabi kon guddi la goo xam ne ci la sikk sàkk di fare ci la coono di fare képp koo xam ne borom bakaar la ci lay laabe ci bàkkaar yi muy guddi goo xam ne guddig mucc la ak texe waaye guddig mbégte la guddig ndam la guddig tonewu la ak mbaax mboolem luy xeeti nattoo ki jafe-jafe itam ci lay jañoo ci lay dàqoo kon loolu la guddi gi di wane ak dikkug Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy koo xam ne nag buñ koy fàttaliku wala rek jël lu gàtt gàtt ci ay jikkoom tam yaatu lool ni ko sëriñ Basiru Fay junje ci tàmbali bi ndax moom yàlla daf ko yónni mu bokk ci ñi nga xam ne dañoo ñëw ngir indaale euh, kàddu gu yàlla suñu borom ak ub njàngaleem ci kaw suuf waaye moom mooy ki nga xam ne moom moo leen mottali ña jiitu woon ñëpp di ci mujj te ab yonent di ñëwaat ñëwee nag yàlla daf koo tànnal aw askan wu baax jaar la foo xam ne mboolem ña ko jiitu woon ci ay maamam ay nit ñu baax ñu sell lañ ñoo xam ne ñu daan wéetal yàlla lañ bokkaale bu si am ay yonent bari ca lool ñoo xam ne ay yonent lañ woon ak ay nit ñu baax foofu la ko yàlla jaarale kon tànnal ko askan loolu mooy la ca moo tax mu daan wax ne ana xiyaarun min xiyaar tànneef laa woo dañ maa tànn jële ma ci ñu tànn kon loolu la yàlla suñu borom njëkk waajale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ko askan wu baax woo xam ne ci la muy aw askan mu ñu xam waxam da nga koy lim di ko lim di ko lim ba mu àgg ca maam ji gën a kawe ci ñu xam muy Adnaan ak yeneen sax waaye nag loolu rek ab junj la ndax yàlla dañuy tànnal nit ki askan wu baax bu ko naree teg ci yoon bu ko baaxal ngir mu gën a yomb bi mu ko tànnalee askan wu baax ba noppi itam daf ko waajal yar ko yàlla suñu borom moo yaral boppam moom yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko yar bu ñuy wax nit ak mbaaxam akub yaram dañuy laaj kan moo ko yar waaye yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom kiimaanug yàlla la moom yàlla moo koy melal na ko soob jox ko jikko yo ko soob moo tax ma wax ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi yàlla su borom a yar rafetal yarin bi ma yar kon kooku luñ mën wax ci ay jikkoom rek bàyyi nañ la ci des am na luñ ci bàyyi moo tax yàlla suñu borom koy tàgg ci jikko yi la ko tàgg wax ko ne ko wa innaka la ala xuluqin azim wan ko daal ma nga ca jikko ya gën a kawe ya gën a màgg ca la nekk moom ndax ni ko yàlla waajale ba ñu laajee sayidna Aysa radiallahu anhu wa ardah lam wax mooy kaana xuluquhu alquran jikko mooy alquran moo tax kon yàlla suñu borom moom mi nga xam ne moo yoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waajal ko indi jaarale ko ci askan wu sell askan wu baax jox ko jikko yu gën a rafet tagg ko ca itam xam nañ ne ci moom la wàcce alquran alquran di am njàngale alquran di ay jikko di ay waare da ci nekk lépp di lu baax waaye moom yonent bi sallallahu moom mooy alquran ji dox moom moo jafe alquran moom moo dund alquran moo jox alquran am mooy koo xam ne masaan a wax wala mu jëf ay jëfam ak ay waxam lépp alquran kan lay nekk ndax ci moom la ñu wàcce alquran moo tax seydna Aysa na mu rek kaana xuluqul quran jikkoom moom mooy alquranul karim te ni ñu waxoon léegi ne yàlla su borom daf ko yaral boppam loolu moo ci feeñ ci biir alquran sax dañuy gis mu di ko jox ay irsaadaat di ko gindi di ko teg ci yoon an ko defal nii defal nii gis nañ ca lu mel ne mu koy wax del jéggale te jéggale lu baax ñi nga xam ne ñoo xamante xamuñ bu ñuy wax bu leen tontu bàyyil rek wax ko ne itam yërmaane yàlla ji ji nga xam ne moom la la yàlla yërëm yërmaane jóge ci yàlla moo tax nga nooy am ak nooy nooy ci kaw mbindeef yi bàyyi leen xel bañ a tar ndax bu fekkoon da ngaa tar rek xaw a da nga tuuti dañuy dem bàyyi la boo geesoo doo fa gis kon loolu lépp ay mbind la yoo xam ne ñu gisee ci alxuraan dañuy fekk ne yàlla suñu borom mi ngi ko daan jaarale fu mu bëgg jaar jaarale ngir gën a dëgëral ci ko yooyu yi nga xam ne ma la ko tànnal muy nag koo xam ne jikko buñ mën a jël rek ci makaarimul axlaaq muy jikko yu tedd yu tedd yi jikko buñ jël rek dañuy gis ne moom moom mooy ki ko dund jël ko ba mu jeex tàkk te desul ci dara jikko boo jël rek ci jikko yu baax yi moom ma nga ci njombaxtal la moom mooy ki nga xam ne moo waxoon ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq dañ maa yónni ngir ma mottali jikko yi yu tedd yi wala tedd ngay jikko yi kon moom benn jikko boo jël rek da ko fekk moom mu nekk ci kaw njobaxtan la dund ko mu jeex tàkk moo tax mu nekkoon koo xam ne léppam alxuraan la nekk ko nooy nenar jege nit ñi lool képp ko woo mu wuyu ku soxla am aajo mu fajal la sa ajo ku am njàqare walla nga jaaxle mu taxaw ci sawet ba loola saafarawu ñi nga xam ne ñoom ñooy ay saxaabaam fu ñu ko masaana woo mu wuyu leen budul woote boo xam ne lu ñu tere daf caa nekk saa yu masaana dogg ci mbir daawu ca rek wooyee xalaat boppam waaye daan diisoo ak ñoom kon kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñëwee ci ay jikkoom mën nañu koo xool wàll yu bari buñ demee ci biir këram xool waa këram dañuy gis foofu jikko yu rafet rafet gis ne moom mooy ki nga xam ne moo gën jikko ci waa këram moo gën ci waa këram ndax ak ñeewantu la amoon ci ñoom ak yërëm leen daa leen dimbale di leen taxaw itam di kaf ak ñoom di foñu ak ñoom di leen dimbale ci seeni aajo waxoon na ne xayrukum xayrukum li ahli wa ana xayrukum li ahli ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram te man maay ki gën ci sama waa kër Seydina Aysa nettali na wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa daan nekk koo xam daal day mel ne mooy nekk surga bu waa kër gi di leen liggéeyal ci lépp luñ soxla day nekk ci mbiri kër gi rek toujours mi ngi yëkkati ak a teg mi ngi defar mu ngi liggéey ci liggéey yoo xam ne yu soxla biir kër gi la waaye nee na saa yu julli teewee rek mu daal di jàpp génn dem ca julli ga noonu la ko wax feneen ne ba tey daana sax ñaw ay yére di daax ay dàll di liggéey lépp loo xam ne rek nit ñi wala góor ñi ñu ngi koy liggéey seen biir kon moom noonu la meloon ci biir këram daan leen taxawu euh, daan wax ne bokk na ci yool bi gën a màgg mooy yool bi nga xam ne danga ko dépassé sa biir sa moo tax ñuy gis yu baree bari yu daan xew ci biir këram ci ay mbir yoo xam ne day tegtale rek ak woyofam di tegtale itam nu mu baaxee ci ak njabootam nekkoon tam ku maandu koo xam ne danaan maandu ci biir waa këram daaw jël kenn teg ci kenn lépp loo xam ne luy xew seen biir la dem mu lijjanti ko ba mu tege ci yoon nekkoon koo xam ne ay waxam daa nekk wax yu leer naññi masaana wax ba nepp kenn du laaj kii lan la bëgg wax du nekk wax ju gaaw joo xam ne kenn du ko mën a mokkal lu ko lañ koy wat du nekk tam wax joo xam ne day diib ba ëpp waxala joo xam ne daal képp kuy déglu rek da nga koy mën a xam kon moom nekkutoon koo xam ne ku dotam la wala aw làmmiñam ñàkk leer wala kàddoom xum ba ëpp wala kàddoom ñagas waaye buy wax daf koy doggamtal mu nekk wax ju teey te leer yoo xam ne bu nekkee kenn laaj ci ren la bëgg a wax nekkoon koo xam ne tam daawul wax ci mbir moo xam ne mbir mu ko yitteerut la buy wax ci mbir itam day nekk mbir moo xam ne yaakaar ne mbir mi daal mu am yoon la bu ko dara masaara naqar itam kenn daawu ko xam ci ay wax waaye ci xar kanam nga rek ci lañ koy xamee it bëri masaana ba sit mbir mbir mu man masaana sit nga xam ne ci ñu ngi koy xamee ci xar kanam bi kooku moo yonent bi sallallahu wa sallam ci leen ci ay jikkoom nekkoon koo xam ne diggam ak sax ba ci gone yu ndaw yi leen di bàyyi xel bu leen rombee di leen nuyu euh, bu ma a dégg sax gone gi jooy daana gaawal ak julleem ngir ragal rek fitnaal yaayam te nga xam ne moom moo ko jur nga xam ne kon yërmaande ci ak euh, jëflante bu rafet bi yemul nag ci mag ñi waaye gone yeeg ñëpp a ci dugg ci biir ba ci surga yi nga xam ne daanañ ko liggéeyal wala mbindaan yi nga xam ne ñoo nekkoon ci kër gi ak surga yi moo ñu koy liggéeyal anas ibnu malik radiallahu anhu mu wax ne liggéeyal naa yonente bi salallahu alayhi wa sallam fukki at mu daal di géñ ne wax mukk eh, baatu mbas mbas muy uffin muy baat bu gën a gàtt rek ci baat buy tegtale nit ko yokkat ci yow wala nit ko am lu ko neexut mosuma wax mbas mosuma wax lu tax nga def lii wala boo defoon lii loolu mooy tegtal jikko ju baax dëgg nag ànd ak nit mu dale liggéeyal nekk sa biir kër nekk sa surga nga yilif ko waaye mosu koo wax dara dara dara lu ko naqari mosu def dara nga ne ko lu tax nga def lii mosoo ko wax sax wax ne ko lu tax nga bàyyi lii wala defoo lii wala boo defoon lii nangam kon kooku mooy naa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu Anas ibnu Malik nekkoon ku ñu daan dàkkantale Xaadimu Rasul ndax mu waroon lëggee yonent bi wa sallam moom moo wax loolu. Sayyidina Aysa waxaat moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mësta dóor ab surgaam mësta dóor ah, muy jihaat ci yoonu yàlla jihaat ci yoonu yàlla daal xëy na waaye bu dul moom mësee su xam mu yëkkati ab loxoom lor ci kenn wala mu dóor ci kenn koo xam ne ab wala jigéen ci biir loolu di tegtale ne kon moom amoon na yërmaande ci yi nekk ci ron kilif téefam mu nekkoon koo xam ne nag mooy ar rahmatul muhdaat demel dal yërmaande la joo xam ne rek yàlla moo ko jël baaxe ko mbindeef yi yërmaande la waxoon na ne wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamin dañ laa yónni waaye yoon wi ne lu dul nga nekk yërmaande ci mbindeef yi yëpp te yërmaande ji moom moo fees dell ak dundam bu ñu xoolee lépp rek dañu gis ne moom lu mu daan jëfe la daan ko waxe daan ko doxe moo tax ba ñu ko waxee ne ko moo tee ngaa ñaanal musrikoon yi ñaan leen yàlla yàlla alag leen benn yoon ñoom li lay teg lépp lor diñ lay lor ak liñ lay wax saa yu ñu dëkk ci di wax luñ la war wax di la lor di lor saxaaba yi moo tee leen ñaan yàlla te boo ñaanee yàlla def ko bañ ko waxee loolu lam leen wax mooy lan mooy man kat yónniwuñ ma ma nekk kuy rëbboo waaye dañ ma maa yónni ma nekk yërmande loolu la tontu woon ci wax jooju kon mooy ki nga xam ne yàlla moom rek doon déglu bu ko neexoon alak ay noonam ba ñu ba mu demee ba yëf yi metti na leen ñaan yàlla waaye def ko ngir am yërmande te xam na ñooñu ko doon xeex ñu ci bëri ëllëg ñooy lu gàtt ci biir diine ji wala seeni sët waxaat ne waxoon ne moom yonent bi saa ne man kat mbindeef laa moo xam ne bépp jullit boo xam ne wax naa ko lu ko naqari wala ma ŋàññi ko wala ma rëbb ko maa ngi ñaan yàlla lool nekk ak laab ci moom ci bàkkaar wala mu nekk ab yool ci moom loolu lépp ngir ak mbaaxam rek moo ko waral moo bëgguta wax kenn lu ko naqari bëgguta sax def kenn lu ko naqari ba tax lu mel noonu bu xasee am te jëm ci ab jullit loolu day bëgg loola wal bëri ko nekkaat lu baax ci moom ngir yërmaa di jàpp moo tax yàlla tagg yàlla subam tagg ko wax ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan xalita alqalb lan faddu min xawlik faafu anhum wastaxfir lahum kon loolu aay boobu loolu lay tegtal ne moom yërmaa dëgg-dëgg moo tax bu mënoon a dékku ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam